administration di ko utiliser à des fins politiques loolu moo dommage ci cette situation bi ñu nekk fi mu ne moo tax il faudrait un dëpp national gis nga après 2024 il faudrait vraiment une restauration des instituts de, de la démocratie mais également des réformes institutionnelles en profondeur parce que li am Sénégal lu doy la dañoo nasaxal démocratie carrément en utilisant l'administration sénégalaise malheureusement. mais ci seen expérience et sur le cas Ousmane Sonko. Mm -hmm. euh, avez fait la procédure et qui avez été confronté euh, à des obstacles administratifs mhm. euh, lan nga jàpp ne war nañ ci taxaw ñu waxtaan si ñu déggoo si ñu légiférer si pour éviter euh, tout imbroglio dans le futur. Euh, li li ci gën a am solo. mooy ñu am une administration qui est au service du citoyen administration bu dul def la différence entre diw boor bi la bokk kii boor bee la bokk malheureusement les douze ans de Macky Sall li ko caractérisé mooy on a une administration politique malheureusement e loolu li ko favoriser mooy di jël ay politique di leen teg à la des directions générales par exemple des sociétés d'État direction générale des impôts direction générale du du trésor je je ne sais pas si. impôts trésor ce ne sont pas des politiques actuellement. Ah, ah actuellement directeur général des impôts et domaines kan la. non non ah, non non Ablaye ah, Diagne. non Gueye il fait partie. non non non Ablaye Diagne là waaw. directeur des impôts oui DGI directeur des impôts. mais Gueye non directeur de nu mu des domaines. waaw moom la voilà moom mooy moom moo nekk APR nekk maire. Ouais, mais, mais le DGID grave, le DGID c'est pas un politique. je te donne d'autres ah. exemples. le directeur général de la RTS lu toll ni RTS. mais c'est un, un média public c'est un journaliste. un média public. mais, mais c'est un, journaliste mais il est maire il est membre de l'APR il ouais, est. en quartier c'est un journaliste. gis nga administration sénégalaise tant que bàyyiwuñ loolu du ñu dem te nag malheureusement avec Macky Sall ça s'est empiré moi j'ai fait l'administration j'ai fait dix ans d'administration j'étais dans les ministères. mais li xew avec Macky Sall musul am. oui mais ci gouvernement yi. les régies financières. aujourd'hui euh, c'est c'est c'est c'est c'est c'est truffé nu mu tudd euh, Pastef daf leen phagocyté. oui mais y a que des hommes politiques là-bas mais mais attends. y a que des hommes politiques là-bas mais est-ce que xam nga origine Pastef. je connais moo tax ngay wax. je connais. je connais c'est-à-dire tamit euh, est-ce que est-ce que. c'est, mais Pastef dafa wax par exemple Pastef loolu ngay wax. Pastef du def li Macky Sall def. xam nga est-ce que ce n'est pas trop tard. non non c'est pas trop tard parce que Pastef dafa ne wax na ko 2019 dans son programme te dina ko waxaat mooy kene les postes de direction les postes de direction appel à candidature lay nekk kenn benn président dootul mën a jël décret jël nommé diw à la tête de telle direction général wala à la tête de telle société. Euh, public. mais xam nga problème la na ban problème la na reposer un inspecteur des impôts et domaines. waaw il a le droit d'avoir des préférences politiques. il a le droit, a le droit de, de militer. mu am toute la légitimité requise. waaw mu militer. est-ce que kooku war nañ ko xañ une nomination. à cause de sa casquette politique. mais am na poste yoo xam ne. c'est ça c'est ça que ça ne pose aucun problème. parce que vous en serez victime demain c'est un acte de bonne gouvernance c'est un acte de parce que am na société d'État yoo xam ne am na ay direction générale yoo xam ne dañoo am ñooy cëslaayu économie sénégalaise boo jëlee société bu mel ni port autonome de Dakar lu mel ni aéroport international de Dakar direction générale des impôts et domaines direction général du trésor yooyu dafa nekk ay société ay direction yoo xam ne nii ak ay sociétés yoo xam ne nii ñoom ñooy cëslaayu économie sénégalaise munoo jël un politique un membre de ton parti nga di ko ko jox ba pare naan leen dem leen uti base. loolu mooy sàkkal ji alalu réew mi dem defee ko politique alors que bu fekkee ne da nga ne compétence la ñuy wër c'est-à-dire ki mën a doxal liggéey bi normalement mais da ngay def appel à candidature loolu mooy acte de bonne gouvernance ne par exemple euh, directeur général des impôts de domaines dañ koy recruter condition quatre critères yaa ngi nii il faut avoir fait dix ans d'expérience avoir dix ans d'expérience comme inspecteur des impôts et domaines wala il faut être inspecteur des impôts et domaines de classe exceptionnelle loolu c'est critère compétence yi probité morale def enquête de moralité mais Sénégal enquête de moralité jeex na fi à l'époque duñ la nommé noonu de dañ lay dañ lay gëstu xool yow yaay kan sa moralité ñu xool ko mais qu'est-ce qui se passe actuellement dans ce c'est le laisser aller lu neex waaye def tout est su fekkee ne tu es du camp du régime en place mais tu peux tout te permettre tu tout te permetre dara du la ci fekk. li ngeen di wax nii. fekk ñu fi benn député buy multiplier xaalis fu mu mujjee. li ngeen di wax nii. fan la mujjee réponds-moi li ngay wax nii. vous faites dans le populisme parce que da ngeen yoroo may mun a xamoo mooy populisme. boo leen yoree nguur suba. non xamoo lan mooy populisme euh, parce que boo naan xaaral rek. impôt domaine trois quarts yëpp. ils sont de ils sont de Pastef. mais parce que dinañu am promotion dinañu am promotion. loolu dinañu retrouver wu à des postes de responsabilité en étant de Pastef. du impôt et domaine. si c'est dans tous les secteurs. au Sénégal boo demee université. non mais man damaa jàpp que ne yëpp ay ay Pastefien lañ. la majeure partie nga dem inspect euh, domaine impôt et domaine da ngay gis ne tous les inspecteurs des impôts et domaines ñu ci bëri la majeure partie. ay ay ay pacifiens lañ nga dem dans la la haute administration. mais daal dans tous les autres ministères. mais Pastef moo majoritaire dans ce pays. loolu ah, moo tax léegi ñooñu ils sont que les reflets de la société. li xew ci société bi moo fa nekk. vous vous rappelez bi ñu redressé fii am na un homme de médias bu ñu fi defaloon redressement bu metti waaw ah. pour te dire que politisation de l' administration ci côté yëpp baaxul. dañ doon am soupçon que waa Pastef fii ñoo ko toppale. man tey. xaar xaar rek xaaral rek. xaaral waa waa passé bi ñoom ñoo des postes de responsabilité ñoom ñëpp ils sont mis au <laughs> amuñu responsabilité. non xaaral xaaral ma régler benn problème bu ndaw. waaw. Eh, les damay animé émission rek li may wax xalaatuma ci dara damay je pose des questions à kii suba bu leen ma indilaat benn document ci kaw dama leen ko ñaan rek <laughs> parce que j'y vais. li nga wax kay assumé ko. <laughs> je vais je les rencontre à chaque fois te dañ ma xaw dañ ma xaw a sonal. loolu bu ko wax nag bon ça veut dire que tu en en avec elle. non non non non. ah, ah ok damay damay bañ rek qu'il parce que dama fa am ay engagement dañ ma rek. ah dëkk bi nag yow yaa ngi xalaat la ah, nga benn benn affaire. mais wax la xaw ma hasard la xaw ma lan la. man daal toog naa fii émission ma wax ci benn instrument de financement benn banque le lendemain on me met en demeure ne ma fayal toog naa fi ci émission wax impôt et domaine ma xëy ñu tonni sama compte bi yóbbu la fa nekkoon yëpp tu baaxul non mais je blague non mais je blague non de la tu es d'accord ñoom ils sont corrects avec moi li ma li li ma leen yoral rek lañ ma laaj ah li ma leen yéen a connivence avec elle ah kay bul daw donc loolu yëpp. c'est pour dire kenn gënu leen baax. mais politisation bi c'est à outrance fi mu ne nii fi mu étape étape bi mu toll moo garaaw am na yoo xam ne kenn mënu ko wax mais dafa doy waar dañoo politiser administration parce que bu fekkoon ne sax yenn postes yi. ñu am compétence ba lañ fay teg mais dañuy jël sax parfois ñoo xam ne amuñu benn compétence. mais pour caser nga jël nommé fi PCA nommé fi directeur général nommé fi. mais mais mais à cette réforme sur la.